mbokk yi ñuy rafetlu ànd bi ak euh, seen chaîne YouTube Dakar Matin ñoo mbégte fas yéene séq ak yéen waxtaan njeexitalu koor gi di baaluwaat ak ñépp di baal ak ñépp di wax ne li ñu jaamu yàlla ci koor gi yal na ko yàlla nangu ful ko wasaare ko bu baax baax yalla na rew mi am jam ndax tay tey ji amul kenn kuy sikki sàkk tiitaange gi nga xam ne nit ñi am nañ ko ci ëllëgu Sénégal buñ koy am nag dara taxul lu dul dañoo foog ne ci jam le lépp xaj um nañ koor ci bismillaahi rahmaan rahim جيخال كوتي الحمد لله رب العالمين نيان السنغال ييب نيوم كوريتك جام تاي سونو بير وقتان بن بونكو لاي دون مودي دانيو فسيني وقتان président Macky Sall. Li ma fi faral di wax rek ne ku ñuy xaar ci wax ju ñaaw bu yaradiku doñ ci fekk ndaxte yarewuñu noonu xamuñu ko ku ñuy xaar ci waxu nit ak nit doñu ci fekk parce que jàpp nañ ne suñu ndey liggéey na loo xam ne bu ñuy wax di yëkkati kàddu réew mi rekk moo tax ñuy wax te loolu rek ñu ñor ñaan yàlla mu kàttanal ba kàttan googu lépp ñu yëkkati kàddu di ko wax mu doon luy jariñ askan wi tegu nag ci kaw dëgg mais laata ñuy tàmbali waxtaan wi ñu bëgg ak président Macky Sall ak soxnaam soxna Marème Faye Sall dama bëgg rek ñu bundaat ambiance bi nga xam ne moo am 2012 ba sénégalais yi xeexee fukki bakkan ak benn rocc ma koy fàttali dafa am solo ko gën a màndargal muy Mamadou Diop sénégalais yi xeex ba dem ci ay élection ñëpp foogoon ne gañe fi Abdoulaye Wade dina jafe ñu gañe ko ci soixante cinq pour cent askan wi am mbégte goo xam ne mosuñu ko woon am te xeex boobu lu ko warloon du lenn lu dul ñu ne Abdoulaye Wade tabax nga fi lu ne def nga fi lu ne taxawu nga Sénégal fu ne res tax na nga ñu respecte Sénégal fu ne waaye nag li nga bëgg mooy ñetteelu mandat bi sart nday réew mi constitution bi bañ ko duñ la ko nangul Macky sàll gañe sénégalais yi am mbégte lool ñu ànd dundaat loolu nga gis yaakaar ni mu jibee woon ñu seetaan élément nañu at moom dan nañ ko làmb gi nag moom comme nee woon na dafa yàkkamti làmb gi làmb gee ngi nii daan nañ ko léegi nag li ñu bëggoon mooy Macky sàll xam na ne lii mu gis tey wax dëgg yàlla nag bu mu ñu def koom comme 2000 léegi nag dañu bëgg wax ne Abdoulaye wadd na dem noppaliku may nañ ko mu noppaliku mais nag ay ñoñam ñu ngi sas Macky sàll nañ ko lijjanti parce que dañu jël suñu ay bien dañu jël suñu ay alal dañu foxati dañu fokkati suñu ay alal kon nak tay dama ne ablay wad suñu mam nga may nañ la nga dem noppaliku waye ay ñojam nañu di ñaawteef yi ñu def. C'est la victoire du peuple et je pense que c'est la grande consécration et nous sommes venus tous euh, fêter. Voilà. Ah, no contan rec. Conhecer da Lacoste, conhecer da Lacoste, não falava propriedade, falava. Ah, não. je pense va Allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, S'il vous plaît. Président, félicitations. S'il vous plaît, ordre bi ci ginnaaw ah. Sóora la sóora la. S'il vous plaît. Attention. Libérez la voie, s'il vous plaît. Monsieur le Président, est-ce que vous avez douté de la victoire Félicitations. Attention, les de ne pas tomber. Wait

gis ngeen élément boobu ma tegal leen mu doon màndargaal di wone yaakaar bu juddu woon ci nguurug Macky Sall ba muy ndorteel Sénégalais amoon yaakaar lool parce que xeexoon ak Abdoulaye Wade yombutoon parce que nag def na fi teraanga bu ne te ñu bari dañuy wax ne way Pape Alé ya jàppale won ak Macky Sall lolu xam nga lan moy dëgg gi modi bu nekkon na Macky Sall day troisième mandat tey ji mën a ci pat pattaaral mais luma ma d' nak Abdoulaye Wade ci yenn injustice yi mu def te Wade amone retenu torop amoon jomb jomb amone retenu am grandeur nek démocrate di yóbbu mbir yi ba à un certain niveau wuuteeg lu ñuy dund fi mu nekk nii parce que nag moo constitutionnalisé li nga xam ne moo di ay marche lu ne ci taarixu démocratie gàcce ngaalaama Abdoulaye Wade ci loolu njeexital li la def yenn erreur erreur boobu askanu Sénégal jóg taxaw Jakar moom mais nak dañ koy sédel li nga xamné def nako ci réew mi demb rek sama compte twitter mangi ngi posté ay waxam muy wax nu muy défendre Sénégal manako dañ la jema salir sa mémoire wante loolu yop bu té sénégalais amna ñu la jàppe te loolooy dëgg la la gëm tay suma bëggee waxtaan ak ki nga xam ne moo di président Macky Sall xam na ma bu baax moo tax su ma gisee cobaraan yi gars yi di wax nii damay ree moom sax bu gisee ñooñu dafa war a reetaan loolu la ne yéen ki ngeen wax xamu leen ko <laughs> soxnaam xam bu baax xam li sama ngëm-ngëm xam sama engagement aussi bu baax a baax nag ñoom umpale wuñ ma ñoom umpale wuñ ma moo tax man su ma yëkkati kàddu di wax ma am ko sañ-sañ ci président Macky Sall ndax dañoo am jaar-jaar dama ci am sañ-sañ ma ko nar a waxtaan ak moom ci yiw fàttali lu bare bare bare bare ci jaar-jaar yooyu nag pour mu leer ci bopp ñëpp Macky Sall dafa nek directeur campagne élection présidentielle 2007 ñu reconnaître ko tamit ben mbir ñagas-ñagas yi amone ci digënté Idrissa Seck Abdoulaye Wade mom mu ñoo nek premier ministre liggéey lu bari nak ci projet Abdoulaye Wade yi pour mu génn ñu jëmbal ko Abdoulaye Wade jël ko def ko directeur de campagne mu nekk daanaka ca booba le numéro 2 du parti démocratique sénégalais liggéey lu bari nag ca jëmmal li nga xam ne moo di ay projet Abdoulaye Wade ba mu nekkee premier ministre nekk directeur de campagne am Ablaye Wade gagné présidentielle 2007 yooyu noonu la demee mu def ko tête de mu nekk tête de liste élection législative yi nga xam ne opposition bi daf ko boy boycotté woon ndax mënuñu woon comprendre ni Ablaye Wade gagné élection présidentielle yi histoire laay wax dama leen di wax jaar-jaar pour fi ma mën a jeexal ak Macky Sall ma net ma wax lu tax ma war ko délivrer message bi booba ñii di wax ni yëpp kenn xamu leen ñun dañoo fekkee daanaka avant dernière interview bu mu accordel journaliste ba muy jiite tête de liste parti démocratique sénégalais coalition CAP 21 xam nu mu tuddoo woon man mi la ko accordé lon ci kërëm gi nga xam ne mi ngi nekkoon wetu ambassade Italie bu Koor nekkoon conseillère en communication maa ngi fàttaliku ca booba man la waroon dafa interview Bobo ña nga woon def euh, defem mu man interview war a dem meeting bambay ci ay dembooc la ñuy def interview ba yépp ña ngay woo seyna bu koor di ko wax na ko heure bu jot na mu na xaar ba ma pare sama interview bi ma defee ko këram moom la président Macky Sall xanaa li yàgg na mu nekk président ñu pare ba mu pare ci élection législative bu fàttalikoo Quand fait interview ba paré dama de ma ni. est-ce que yo do président Macky Sall arrête de jouer de jouer les oiseaux de mauvais augure war na ko parce que bobu man mang ngi dégg ay rumeur yu wax ay rumeur yu élection présidentielle budget campagne man ma wax ko ko ah monsieur le premier ministre est-ce que vous yow boo de ci législative doo de ko ak Abdoulaye Wade savez Seynabou Koor mon école, chargé de com Je maa le ko wax mu arrête de jouer les oiseaux de mauvais augure non non ñu tooñante après ma jël samay bagage dem moom mu jóge fa dem Bam Bambey def meeting ak Aïda Mbodj ñu pare ci loolu Wade jële ko post premier ministre ñu nommé ko président de l'Assemblée nationale coow yu sew sewaan yi am balaa coowul assemblée bi di am Macky Sall ñëw na fi jóg dem ñu woote réunion comité directeur PDS ca pale présidentiel mu ñëw ñu bëgg ko fuwe mu mer gedd ñibbi boobu yàq nañu xelu Abdoulaye Wade ci lu baree baree baree baree bare faucon yi lu tax ñu yàqoon xelu Abdoulaye Wade parce que Abdoulaye Wade moo mës a ànd ak Macky sàll ci suñu maam ju baax jooju yàlla na ñu yàlla taas ci barkeem sëñ Salim ne am naa yaakaar ci moom ne ëllëg war na ma mën a wuutu ci bopp nguur gi comme Macky sàll defoon na mission am réélire Abdoulaye Wade 2007 nekk législatif foog ñu éliminer ko parce que bobu ña nga daan ña daan faucon di wax ña nga préparer Karim wad wax ji fofu la tambalé Karim nek sen tànneef ta yo nga dégg génération du concret lu ne Macky dund lu metti nak présidence assemblée nationale am ñu tuumalaan ko ay xaalis bu mu lubal ci campagne bek lu ne digganteem ak Ablaye Wade ñagas lool yéen yu fàttaliku ma dikk ñaar ba mu demee na da cee dox ay tànk jàmm ak yooyu loolu yépp soob la woon boobu ñoom Doudou Wade ñoom ñépp ñu ngi fexe nu mu jógee ci bopp assemblée nationale kon xanaa lii jiitu na convocation Karim dama leen di wax sama diggante ak Macky lépp mu jeex te su ma koy wax dama koy wax ba pare wan leen ne ñun gëm la def France jël décision ne day décorer ki nga xam ne moo di Macky Sall légion d'honneur xawma jeunes yoyu digënté ak Ablaye Wade ñagas ba nga xamné ñu joxe ay consigne RTS RTS bi mu utiliser tëj ñu jox leen ay consigne ferme sañu ñoo dem couvrir événement bi ma ngi woon 2STV ma jël sama responsabilité ànd ak un cameraman qui s'appelle Babacar Ndiaye kenn yabaluma woon ku wax ne yak ma yabal 2S waxo deug man ma japp ne c'est injuste qu'un président d'une institution de la République ñu koy defal lool ñu wara a tekkum reportage ma ñëw and ak Babacar Ndiaye fekkee cérémonie bi yépp def suñu interview man ma jël li ma only responsibility sama responsabilité personnelle kenn yabalu ma ànd ak Babacar Ndiaye def ko tourné ko ba ci këram ak yépp la ci xew maa ngi fàttaliku boobu ndeysaan ama mbiru jeu personnel lu bi yépp respect laa am ci ñoom parce que relation yu rafet la ñu séq waaye bugguma di tooñ man bugguma di wax yenn wax yi parce que man dama am grandeur dama bëgg dama ko bëgg parce relation yu rafet laa séq ak njabootu 2S bu yaatu geeg yépp voilà te duma dencal nit dara su ma ne duma dencal nit dara moo di gis ngeen lu xewoon sama diggante ki moom 2 jàppaluma ko dara amna amon nyagas na ñagas-ñagas la pare nañ ci ndax ay domam ndax soxnam ak loolu yépp jàppaluma ko dara parce que c'est une partie de ta vie da nga koy assumer après nga taxawee neneen lu ci am solo mooy na rafet dom entre parenthèse la woon man nag Babacar Ndiaye taarixu histoire laa leen di wax ñu dem couvrir ko ba pare def ko page spéciale maanaam bu ñu defee journal ba pare teg ko page spéciale pare di xar ñu def pression bu ne ñu woo ma ko man ci biir fa ma doon liggéeyee reproché ma ko ma defendre ko objectivement na li tax élément dem couvrir monter ko page spéciale parce que dama ma c'est un président d'une institution qui a été décoré madame, parce que yu gëna ndaw koy dem di couvrir ñu def ma ci ay yu ñoo on fait la publicité de Macky Sall j'ai assumé et j'ai défendu pourquoi je l'ai fait. Il y a li may wax ne dafa am seede Aziz Ndiaye euh, Abdou Aziz Mbaye qui est la première dame qui conseil antique soo xoolee ci bu Macky Sall di dem ay euh, manifestation Abdou Aziz Mbaye a fait le lendemain le sur lendemain a ñëw sama bureau man 2S. na ma Pape Alé damaa bëgg am exemplaire parce que grand bi moo koy laaj ma wàcc ci montage def ko ci clé jox ko ko bu yóbbul ko Macky Sall pour mu am ci souvenir xanaa kon Macky Sall man xaaruma ba mu nekk ci nguur ma am ak moom ay relation wala may def ak moom li ma war a def sama liggéey mu ñagas lool ci diggante ak Wade ñu yegg ci cérémonie de présentation de vœux assemblée ñëw présenté ay vœux RTS dagg image bi Macky Sall nuyoon Abdoulaye Wade ba ñuy wone élément bi ñu ne l'Assemblée nationale a présenté ses vœux ñu wone Abdou Fall. mi nekkoon vice président assemblée nationale à la place de Macky Sall mu nuyonteeg Abdoulaye Wade parce que xam nga lu tax Macky Sall dafa nuyonteeg Abdoulaye Wade ba pare comme diggante bi ñagasoon na xaaru fa cocktail bi mu dem cocktail bi ñuy faral di def xaaru ko fa ma dem toujours dans leur ak faucon yi nekkoon ci dama dagg nuyoowu makki Sall. Sani, dans l'Assemblée nationale a présenté des vœux au président de la république wane nuyoowu Abdou Fall en tant que vice président de l'Assemblée nationale Madame Mouri wëri fexe ba jot image bi am image bi coow li bari ñu ne wooy Macky a la cérémonie de présentation de vœux Madame dem jëli image bi je ne me rappelle même plus dem monter élément nous ñu que le journal 2S était bel et bien présent lors de la cérémonie de présentation de vœux voilà les images Nous voyons, ko ñu en mode ralenti man pap pour rétablir la vérité des faits parce d'accord c'est woon ci injustice L'Assemblée injustice Assemblée nationale a convoqué Karim wad Ablaye wax convoqué sama affaire mais nous nous qui dëgg bi moy commission bi yor affaire saytu lu mel noonu Mamadou Seck moko Mamadou Seck bu mbaaw moo ko de ñoo def une liste personne ñu wara convoquer dugal ci Karim wad xam nga lu ci sax comme Karim wad déggul wolof bu mm, man question wolof mu ay pour Yak. ñu Macky Sall moko créer pour yàq euh, image Karim Wade parce que Karim Wade lañ bëgg bref loolu yëpp ñu wax mais Mamadou Seck en réalité mo joxé convocation bi c'était pas Macky Sall ta fan ngay xam un argument fallacieux bu tenirul la route li yëpp sama koy nettali dama bëgg wax ju bari ji ñuy wax ñu xam dëgg gi parce que man Macky laay wax ak président de la République ak soxnaam Marème Faye Sall ak ñenn ñenn ñu xam niveau boobu laa toll looloo xam loolooy dëgg ñu ñëw Mamadou Seck moo joxe convocation bi parce que moo nekkoon président convo commission boobu Mamadou Seck moomu la parce que li may nettali nii yépp c'est pour aboutir ci message bi ma bëgg a jox Macky Sall ma Seck moomu la ñu wax ko singali Macky Sall tata lu nañu attaquer ko c'était faux si je crois bien si je ne m'abuse pas est-ce que kan Macky wul won sax ba commission bi du joxe convocation yooyu mais le paradoxe xam nañ ne commission bi Mamadou Seck ko jité won mais bañu fexé ba dàq Macky Sall ci bop assemblée nationale ku ko remplacer Mamadou Seck ko remplacer di Mamadou Seck mo remplacer Macky Sall ci bop assemblée nationale te si waxé kenn la xamné mom mo commission bi pour jox comme convocation Karim Wade Mamadou Seck la le président de l'Assemblée nationale dafa gis commission bi rek euh, joxé avec mu mais celui qui est à l'origine c'était Mamadou Seck Mamadou Seck moo remplacer euh, euh Macky Sall bopp Assemblée nationale donc l'argument de Karim Wade était fallacieux bo bëggo nañ teqali ko Macky Sall kan moo defoon loolu Saada Ndiaye moo porté woon loi bi xam nga vicieux mënul wees loolu parce que Saada Ndiaye en 2006 moo yóbbu woon Macky Sall Fouta mook Ibrahima Dieng wadd moo ko waxoon na ko Saada yóbbul Macky Sall Fouta mu xam ay bokkam parce que bëggoon na bu Macky bu demee foofu tourné Fouta 2007 Macky làkk alpulaar donc. Sada ñay mo porté woon loi boobu nga xamne dañu indi la durée du mandat du président de l'Assemblée nationale à 1 an bo xamne man nañ ko changer at mu nek ñu voter ko te 5 ans la won ñu def ko 1 an renouvelable rien que pour enlever Macky Sall looloy dëgg Sada ñay mi transhumé tay ji dem mo porté loi bi Sada ñay dem na ci ba mu nek bi peut-être di wax bay wax affaireu xeet maanaam di wax sutante xeet yi moom moom am pour nga xaw ma nu mu ko waxee alpulaar yi xam nañ li mu wax parce que maa ngi audio bi maa ngi vidéo bi sax juste après l'alternance ñu def parlement maanaam dajale Sénat bi Pape Diop doon jiite nga xam ne dañ leen nommé boole kook assemblée nationale bi nga xam ne ils sont élus au suffrage universel direct ko logique kay nous ñun élire au suffrage direct ñu parlement bi lañ ko défé won Ngor xawma King Fat rien que pour ñu wajj ñu daraja nous Sall ñu jël Pape Diop mi président Sénat Mais ko ci ma taxaw ci bi ba muy génn une réaction papa vous avez constaté comme tout le monde ce qui vient de se passer et vous savez que c'est anormal je n'ai aucune réaction à faire comment peut-on prendre quelqu'un bo xamné dañ nommé muy jité parlement bi mu teggu ci ko président assemblée nationale buñ élire loolu yépp am fi ma dajé mom benn jour fi wetu almadi nako massa président mayta li nga dajé mu ne ma non bayi len ci ban bi lu jot dina yomb su may wax li damay bëgg ni ñi di dal mais ils inventent des mensonges ils disent n'importe quoi maintenant tax vous me verrez jamais jamais jamais me rabaisser à leur niveau pourtant. jamais parce que à jot bi mu jóge fa dem ñu ba loolu ñu samp APR ñoom Alit Badr Cissé yal na ko yàlla yërëm jàmbaar gëtt fu ko dëdd ñeneen ak ñeneen Benoît Sambou Seydou Gueye ñoo ñëpp ma reconnaître ko nak nako lén lay reconnaître nak maram Faisal moy ci digënté xéxam ak Abdoulaye Wade amna fulu ju toll ni na yap na jëkër ji yep su ma nee yàpp wax ma la yàpp mooy ci ci yep maanaam dooleel na ko wolof lay wax yep na jëkkër ji ba mu mën a résister tout charge yi ko Ablaye Wade def ma xam ci dara jël télé téléphone am sonoreem def ko sonnerie guerrier parce que ils ont appris de quelqu'un d'autre loolu yëpp xew fi mu démissionné post yëpp créé parti mbàyyi bañ ko jëlee ci assemblée nationale Alioune Badara Cissé bokk ci ñu xeex loolu yëpp boobu néew na xamoon ne ah, fan la Macky Sall dëkkoon mi ngi dëkkoon dans mer ci ginnaaw wetu fondation Frédéric Hébert cul de sac la woon ngay dugg à foofu yëpp jaar nañ fa moom ñu xëy suba teel Cheikh Tidiane si ministre de la justice xaw lan mi waaw waxoon ne affaire blanchiment d' argent la ñuy Macky Sall ne ñoom Omar Bongo dañ ko joxe ay xaw xaalis bu bare bare bare bare yenn détails yu secret yi nga xam ne sax ñu ko informé ba mu def yooyu bëgguma dugg ci détails yooyu police bëgg koo jël ci benn guddi Aziz Mbaye ma nekkon ak yow fi nga doon jouer billard n'est-ce pas bañ lay wo di la informer lolu nga informer ko nga informer ko pour ko nga informer informer na ma police mi ngi posté auto bi ci wetu ki bi bëgg jël si Macky Sall muju ñu ko jël ci le lendemain ñu jox ko convocation Moustapha Cissé nek deuxième voiture Ablaye moom mu jiitu jaar ci li ñuy wax tey jii ci Sonko mu jaar sens interdit Sandaga jubali commissariat am ay ko ndiran di jamais vu four bu ëpp euh, fuur bu rëy rëy ñu dem commissariat ba ma ngi won ci auto bi ci deuxième voiture sama auto mi ngi won ci cortège bi ak xuma ban caméraman xom babacar ndiaye la woon xoma amadou kuaté mustapha Cissé lo nek ci deuxième voiture du yuuxu di wax ne kenn du làq doom di dóor doom maanaam Karim doo ko làq di dóor Khalifa Sall mi mu tëj nii kaso ñaari at jógee hôtel de ville ànd ak soxna Seyna bu Wade dox bu buntu commissariat sëñ Galas kantum fekk ñu fa Abdoulaye Wade joxe instruction ñu bàyyi Macky Sall mu ñibbi këram guddi googu sax trois heures du matin xaw ma yooyu am na lu xew ci diggante ab Abdoulaye Wade ak Macky ak Macky Sall le 23 juin dama leen wax ay jaar-jaar ak yeneen yoo xam ne c'était le 23 juin. cinq heures du matin six heures man benn monteur bu tuddoon King ak sama beneen monteur bu tuddoon Aline Diop 2 ñu dem buntu ba assemblée nationale fekkee lépp fekkee lépp ba ñuy dóor grenade bi sëñ Mansour si Jamil lépp ba leen rawale du leen dugal kër soxna Penere yaayu joor Diagne maître joor jaañ joor maa ngi lay nuyoo passage parce que sama xarit nga woon yaa ko dindi nag ah entre nous <laughs> maa ngi lay nuyu vingt-trois juin ñu toog foofu xeex bi metti lool leader yépp ñu mujj leen dugal ci biir kër feneen ñu toog foofu léegi ci biti nag xeex bi am ñu attaqué kër Farba Senghor yoy yep taw li bari lool Souleymane Ndaañ néna ñay mo nekkoon premier ministre defon nañ la grande interview mang mom, mak babakar ndiay ñoko interview interviewé won ci moment yi xex bi di metti ba wad jël décision retirer li nga xamné projet bi la man Macky Sall président de la république bobu candidat bobu ki la won opposant la won ñu dem deux s ma tek ko ci plateau bi xanaa lolou yag na Seydou gay mang fa won defe naa si je m'abuse Abdou Mbow ànd nag mu ñëw tok def plateau bu mucc ayib wax ci Ablaye wad 23 juin lolou wax ma len plateau 31 décembre 23 juin fofu la ko Seydou gay woyé na wa TFM dañu bëgg nga ñëw sen plateau mu joge fa dem plateau ba laata muy génn ñu taxaw ci buntu bi nii mu ne ma yow de yaa ngi may dalal nii waaye boo sàgganul palais dinañ def pression ci sa patron moom Macky Sall moom ko wax sa patron mu mu dàq la ma reetaan la ca xew nag du ma ci dugg ci détails yi parce que nee naa leen bëgguma tooñ ak ay nitam yi ma doon jël à chaque fois Ibrahima Sall bu nekk Sicap mën na ko témoigner Alioune Badara Cissé ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen Mbaye Ndiaye ma ñëw nag ci daj dëb bi 31 décembre dama leen di wax jaar-jaar yi pour ngeen comprendre ak yeneen ak yeneen plateau 31 décembre defe naa le 26 ou le 27 man maa ñëw ne de je change de formule parce soo leen xoolee plateau après le discours à la nation du président, opposition, pouvoir. Opposition, tout ce que le président dit est nul. Pouvoir, tout ce que le président dit, c'est bien. C'est la même chose. je change de plateau. Comment Parce que l'homme politique de l'année, à l'époque, ça devrait être Macky Sall. Abdoulaye Wade def trois fois le tour du Sénégal Gaïe def plébiscite pourquoi ne pas tenter de l'inviter comme souvent sur les plateaux de télévision française On inviter un à me commenter le discours du président de la République Avec ay chroniqueurs des fois mais a priori quand tu invites opposition pouvoir xam nga Tu muy demee le la teesante te ma def ko ma sama sama carrière yépp daanaka loolu laa def amul plateau bu ma deful ci Moi, je change Mais dawal fille, tu veux des woo ko téléphone jot Mon ah, jeune frère comment tu vas ah, président na def mais président moi je souhaiterais vraiment vous inviter le 31 décembre pour commenter avec vous le discours de maître Abdoulaye Wade Mon ah oui oui comment ça va se passer bon écoute euh, je dois me rendre en Mauritanie mais je reviens normalement le 28 et le 28 éventuellement avant le 31, je te donne mon accord de principe. Manako, tu es d'accord je oui. Mais si je suis venu, la pour nous parler. nga expliquer comment ça va se passer Manako, il n'y a pas de souci Je a pat amul kenn ku ko a biir 2 ku wax na ko c'était pas vrai man a pat qu'est-ce que tu nous prépares pour le 30 décembre une surprise en tout cas dans di surprise le 31 le 29 le 29 décembre président Macky Sall où le 29 décembre président Macky Sall est ñibbisi Fall moma ma téléphone sama grand mais le président est là il aimerait bien pour échanger un peu sur comment ça va se passer le format est-ce que tu pourrais passer à la maison à café rue quoi manoko d'accord ma suis dugg ci cœur Macky Sall Mermoz na ma ñëw ma dugg si fekk Talla Mamadou mi mi ministre de l'éducation toog ñuy naan di naan non président quelque chose mu mu ne ma war nga de téléphone Nokia wan ma sama benn photo ak moom ne ma bii ba la Jolie la nga ñëw foofu avec la délégation française ñu toog ci benn restaurant ma daan daw di bëgg photo man photo oui c'est grand j'avais oublié ma donc tu es là avec le euh, président Macky Sall mon ne ma waaw ñu toog Macky Sall est ànd ak Aly Ndiaye tu es là mon ne comme vous les journalistes vous aimez les scoops là Aly a décidé avec son mouvement de rallier Macky 2012 ma ne ko ah bon finalement parce que xam nga lu tax finalement parce que deux semaines avant Ali Ngouille Ndiaye moomu daf ma invité woon restaurant Scheherazade pour ñu reer pour ñu discuter de l' actualité politique li may wax du ay révélation parce que am na la yaa yaa ba de du du ay révélation la mais amul benn incident du ay secret d' état ñu toog reer parce que wax moo jot aussi ñu toog reer mu ne ma bon yaa Moustapha Niass qui me contacte pour sa candidature Idrissa Seck Ousmane Tanor Dieng ma ne ko ah Benno Siggil Sénégal de bu ñu deful bloc dem je ne crois pas que dinañ gagné kenn moo ci ëpp chance Macky Sall man wax naa loolu Aly Ngouille Ndiaye restaurant Cheikh kon nga xam ne lu bëri yàgg naa kaw noppi nag parce que bu fi da ngay wax mu wax ma ree ma ree man noonu teg Aly Ngouille Ndiaye un homme que je respecte beaucoup mu nuyoon teg moom mu dem na ma est-ce que doo ma may une minute que suñu waxtaan dafa war a gudd te dafa am kenn ki nga xam ne moom laay consulter éventuellement si je suis élu président de l'Assemblée de la République moom laa bëgg a nommer conseillère chargée des affaires des handicapés ma ne ko non y a problème président ma toog ak Talla ñu pare. dugg ca saal ba man Aline Fall ak moom Aline Fall na ma comment ça va parce que parce que moo yoroon comme bi ma il vient à 7h30 7h45 19h30 19h45 ñu jël plateau bu ñuy wax loolu soxna madame Faisal Sall yegg si dugg si ça va na ngeen eh, def ba waale lan lan ngeen bëgg naan ay indi ay jus duggaat tooj ma ne eh, sama jëkkër ji nag bu ko sonal de doo nga garaaw bu ko sonal ci 31 décembre ma ne ko ah dinaa ko laaj li ma ko war a laaj de mu tontu te d'ailleurs je le ferai même pas seul j'ai invité mon grand frère Momar jong pour partager avec lui la plateau noonu la demee man maa invité Momar Diongue parce que sama mag la sama xarit la sama mag la yàgg nañ ñëw toog dama leen bëgg a wax lu tax man am naa sañ-sañ wax ci Macky Sall Nous sommes tous comment ça va se passer Manoko, il vient à 7h45 on prend l'antenne 15 minutes on va parler un peu de comment il a vécu l'année et tout ça et truc 20 heures de fait son discours en principe 20h30 il doit terminer après on va prendre encore 30 minutes pour discuter des décrypter et tout voir a discours am tardé Macky venu avec tous les ku ko ci ma suñu kilifa gi laa Njaay mi ngi ko yëgee woon ci benn anam El maa ngi lay nuyu di la baalu àq ci koor gi parce que man duma ma jàppal nit dara li xewoon suñu diggante xew na pare nañ ci tourné naa la page. la lendemain le 2S waroon organiser son premier combat Gris Bordeaux ma Mandione carton d' invitation autorité yi man lañ santoon ma defar ba mu ko defar. pour dimbale ma ci dispersion bi lañ woo ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm tamit bëlëb ndaw moo yoroon suñu moto bi laaj toog chantier woo ma ne ma autorités yi est-ce que duñ ko jox bëlëb mu distribué comme yàgg na liggéey ak conseil économique temps wu Famara ma ko ah d'accord bu ñëwee muy lim ci Macky Sall ma ko Macky Sall est-ce que jar jar na ko parce il va venir il est mon invité pour le 31 décembre il va venir mu ne ma ah bref tout le monde a des détails ce n'est pas important j'ai beaucoup de respect Macky nous ànd ak on ñu sur le plateau De 20 heures tardé discours de 22 heures. 22 heures xamuñu lan moo nekk discours tardé jusqu'à présent en interne Macky Sall plateau Macky Sall le retard discours Sénégal nous profiter de l'occasion vraiment l'interviewer carrément je Momar Diongue dem leen ngeen pendant 2 heures de ou deux heures 15 minutes je crois ba ñu bon on décide de libérer Macky Sall quand même on len de libérer ko ñu nous rek ñu tek hymne national bi waro commencer ko bureau qu'il 2 deux na toogal fii nga toog di seetaan man ma génn man Pape Alé na ko man seetaanuma discours bi j'aurai le temps de génn boobu la ñu réfectionné lagon 1 ma ànd ak sama soxla ñu invité ñu fa diine ba may génn di dem am na tey jii kenn ku transhumé dem ci Abdoulaye Wade ci Macky Sall woo ma téléphone saaga fu mu gën a ñaawee saaga na ma ko wax fu mu gën a ñaaw wax na ma ko ndax li ma dalal Macky Sall kooku mi ngi woon ci président ma tontu ko tontu yaam fulla ne ko maa ngi fii ginnaaw pale boo leen amee leno fekk leen ma foofu tey jii gis naa kooku transhumé na dem toog di bëgg di wax ci Macky Sall dama leen wax na réew mi ñàkk dignité ak personnalité kooku bu ndajee ñu ñaar <laughs> du wax ji du bari dañuy nuyante rek garaa na nga def sa va maa ngi fi point ñu dem ci ay élection Macky ba muy def investiture am kenn ko invité kan organisation Moustapha samedi investiture bi invité man samedi 11h 12h li wax ay ci inventé 11h 12h mu expliquer cette mobilisation bi ak lépp li

du ma tudd turu de na am kenn ko ne mi ngi waxal Macky lu ne mais na parce que doon wër di wax ne a gagné les élections avec 53%. fi ma tok wa sama heure wax ma ne Macky eh, am na eh, impossible tendance yi deuxième tour moy am ma jël responsabilité annoncé un second tour na leen second tour Wade Macky Sall foog ñu préparer wu pour dem campagne ci noonu am na kenn ku ma envoyé message ku nekkoon biir parti démocratique Sénégal mu ne ma ñun ñu ngi nii carte générale mais c'est le second tour ci noonu la am kenn ku dugg interview bu ñu xoolee ci archive de li may wax yëpp di ngeen ko gis ma génn kilifa woo ma dama pavaale tu viens d'annoncer un second tour mais c'est risqué toi euh, est-ce que li ngay wax nii tu as un garde corps ma ne ko je n'ai ni chauffeur garde corps yàlla am na te ma ne ko yéen nag boo leen génnul wax suba char de combat yi génn ñu ne Wade gagné na 53 pour cent ci guddi ga ñu def benn conférence xawma fële seen siège te boobu maa ngi dëkkoon man ay en face kër Lamine Faye ay ponkali nit di ko garde mënoon naa gaare sama oto ñu agressé sama maa ngi dëkkoon en face kër Lamine Faye C'est qu'à voir. deuxième tour nous. boobu l'a créé après deuxième tour le débat Il faut inviter ñuy deuxième tour bi parce que 2012 moins de 2019 deuxième tour bi ñëw Ibrahima Sall suis sama seede la fa sur le plateau bu pas Sicap tendance di wad man len Macky Sall gagné na élection yi na waa Ablaye Wade woote légui ñu désamorcer toutes les crises possibles parce que tendance yi moom mun kenn mënu ko renverser c'est impossible ma jëkk ba si yàgg craqué avec le stress la fatigue joy à ah, l'antenne yu bëri dañ dañ wax nga doon joy parce que da nga doon faral Macky Sall mais ba mu falo nit nit ñi di def pour am poste Macky Sall yomb na l'arbinisme def ay courbette xanaa kan su ma ko bëggoon def naa ko bu léegi ma ko falee bañ ko bañ ko falee président lu bari foogoon nañ ne je vais utiliser des couloirs wala yooyu pour dem on a gardé de bons rapports du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon toog nañ waxtaan ci lu bari man moom soxnaam relation yu rafet ak soxnaam mais xamna naa ne loolu dañ na parce que japp na ne kula tejj kasso mom moom na la ne dé mais nak jappaluma leen dala juste ñii ni rank ñii ni da rank sama yone wut ci ma ngi dundat sama dund 75 ans bam koy xamone na ne du def 5 ans 7 ans lay def parce que d'abord deuxième tour bi ko wa am 23 diko imposer loolu d'accord ci won dañ nako demal rek nga ne waaw d'accord ci won après lako jël diko vulgariser mais jour bu mu en France avec François Hollande ak président conseil constitutionnel bu français bi dellu le war ma am luma ci waxtaan la xamné ki du def ben article né tudé ko l'astuce que Macky Sall va utiliser pour ne pas faire 5 ans mais 7 ans il va passer par le conseil constitutionnel mamad Jong mën na ko mi ngi won ci vision mak mu def ay reniement yu bari le pouvoir l'ivresse du pouvoir l'obus bari dugg voilà léegi nag président Il fogné, foog ne ñi top ay ati at même ce premier mandat Saga, la parce que wax ju ñaaw ju bon yenn wax ju ñaaw ju bon bonheur. moo yé a lu ne ñu yàq la ko ne da nga tële tu es incapable tu ne peux pas être un président de la république waa PDS ba nga faloo dañ la xeebal kon ñiy transhumé ñépp ci PDS ci yow bët boobu lan lay xoolee ba tey ji ñoom yow transhumant yi jomb ñu fen seen jabar parce que tey jii bu nekkee ne da ngay wax dara sa jabar di la seetaan ci télé bi ngay wax loolu di ko wax sa doom di la seetaan ci télé bi sa serigne dina setan ci télé bi say am di di la ci télé bi nga di wax wax guddeeg bëccëg lu musiba bu bon nga yak ko Macky Sall xëy suba tel li nga waxal lool yépp li nga wacc won lepp nga lekkat ko ba reg ba par nak taxaw na da ngay wax kon yow sa jabar xam na ne sama jëkkër du waxatu deug sama dom xam na ne sa dom xam na ne sama papa du waxatu deug say xarit xam na ne yow amo benn dignité Macky Sall le nangu ñëw pour mais xam na tekki wo dara nit ku diñ président défendre ci plateau yi def nañ PS def PDS def APR bo fi joggé xam ko kuy ñu fa ne on connaissait pas ses ambitions pour le Sénégal mais c'est un grand travailleur nous avons décidé d'apporter notre soutien baal ma ci kàddu gi fenn kese yan soutien poche rek lañuy wër nit du am ñaari kàddu am na benn bu ci dul dëgg membre fondateur yu APR ndéew nga ci nga gis ku ñëw toog ci télé de défendre Macky Sall léegi xoolal ñu koy défendre rek ñoo xam militant dernier heure la ak transhumant président nga foog ñu ñu gëm nañ la te man ma la wax man papaale bay na lol ñi ngay fogg ñu yor sa làmmiñ ji ratata di wax bo leen woo ñun duñ waxtaan ak ñom en privé gëmuñu la président ma jox la ben tektal bu ndaw conseil des ministres parce que fa tok ben jour am lo wax

président xoolal ni mu rafetee won jonction bi nga amone ak askanu Sénégal nign la falé, nga nek jeune ñu né ah alhamdoulillah pour la première fois un président né après les indépendances style de management bi day changé doxlin bi day changé vision bi day changé mais tey jii lan lañu gis président même Senghor répression bi mu def répression bi ngay peuple sénégalais bi amaton, président lañ ba ba président de la république mi ngi armée force de défense sécurité avec autant de matériel de répression pour à ce que nous Sénégal pour nous dóor sénégalais pour ñuy gagner sénégalais ñu ni ñu li ni boobu ñu ne Sénégal ci nguurug Macky Sall fukki bakkan ak juróom-ñeent rotagum na fi ñaanuñu yàlla beneen rot fi wante njort li mënut te rafet te loolu amul kenn ku la ko def amul kenn ku la ko def yow mu am nag sa biir làng si ay nit yoo xam ne sont des intouchables dañuy toog di saaga nit ñi te yow xam nga yow nag moo la mayoon président de la république sax benn mbir mooy nëbb nga ñu sa bopp ba falu parce que daa nga wax ne waa PDS insolence ak arrogance moo tax sénégalais yi jéppi leen mu tey ji xoola sa nit ñi réewandeeg dañuy wax ak ñun ñàkk teggin gi ñuy wax ak ñun ba da ragal sax invité quelqu'un de la paire quoi ñàkk teggin réewande gi ñuy wax ak nit ñi nga xam ne dañuy revendiquer na yow la ñuy ànd ak li ñuy toog di sos di fen te li ñuy fen et puis réfléchissons li ñuy fen yépp taxaw senegale yi ki ñuy fenal moom la ñuy seetaan moom la ñuy déglu Pape Alé li Pape Alé li Pape Alé li Pape Alé buy live ñoom bu ñuy live duñu am mille vues Pape Alé buy live au moins 3000 4000 5000 10.000, 10 000 2, fois même plus toog de ko en direct te du ko Facebook YouTube la koy def ko Facebook da nga ci Pape Facebook quelle est l'efficacité quelle est l'efficacité Surtout, suñuy wax ñu wax way sutura lu tax booy insolent ah ci réseaux sociaux yeeg yooyu parce que say nit ñoo leen woo ci loolu nit ñoo xam ne bu ñu toogee bu ñuy wax ci nit du ñu wax dara bon man moom xam nga euh, loolu dama ciy gërëm hmm, benn kilifa gu mag nee na Pape doo noppalu man xam nga yooyu duma seetaan yooyu moo tax. Comment wax un ma message moi je regarde même pas ce truc là Je n'ai pas le temps j'ai beaucoup de boulot J'ai beaucoup de choses aw ma job. à part poster sur ma page Facebook ce que je pense sur mon Twitter je n'ai pas d'autre temps xooluma yu bari xooluma Ce c'est pas mon problème Pourquoi tu fais da problème parce que da focus sur ce qui t'intéresse. président bu ñu demee ba 4 avril nous génne autant de matériel ñu ne drone yii c'est pour larguer des grenades lacrymogènes sur où de répression sur ce peuple ban prestige la am doomu wax na xanaa Marème Faye Sall mooy wax ne ñii dañoo en dal leen seen kaw non

dal nañu ci mbiru Madiambal bañ ko tëjee mu xeex libéré dal nañu ci mbiru sa Salif Sadio c'est des vérités mais ñëpp ñu lay xirtal ci dalal tëjal ñii dañoo reew dañoo xamadi kaso yi ñu ngi fe xoolal seetloo dara kaso yi da nga leen tëj kaso nga génn xale yi waxaat lu gën a garaaw kon nga xam ne kaso bi safu leen te ne dimbalal ñu yor kaso bi. sonn nañ amatuñ fu def nit amatuñ fu def nit yaa ngi leen imaginer rek président kaso bi ñu fa tëj ñëpp ci ay affaire politique ñu xëyandoo benn jour ñoom ñëpp yëngal lan la ñuy wax ci Sénégal lu garaaw ci garde pénitentiaire yi ñaanuñu ko yàlla ñun dugg nañ kaso di waxtaan ak xale yi xale yi ñoom léegi seen CV lañ ko def mu mel ni léegi suñ force de défense sécurité amuñu leneen lu ñuy def loolu wër de jàpp rek tak lido jàpp te nag mu am ca booba say nitu bopp yoo xam ne dañuy saaga di tuumaal di fen ñun sànnu les indépendants parce que am nañ carapace bi parce que am nañ vécu bi parce que dund naa lu ne ci nguuru Abdoulaye Wade kon am nañ carapace bi on s'en fout éperdument parce que ñooñu ñun man li ma jàpp sama philosophie dama na ñooñu seen ndey liggéeyul seen kër bàyyi parce que seen ndey bu liggéeyoon seen kër bàyyi duñ duñ mel noonu ku sa ndey liggéey sa kër bàyyi di nga am beneen taxawaay seen ndey liggéeyul seen kër bàyyi parce que bu liggéeyul seen kër bàyyi wala seen ndey dafa xëy ñoom gontuñu dans la mesure où bu nekkee ne kii day wax ci réew mi di wax ci Macky Sall yow amoo lu habitude di toog di wax ci moom mooy sa ndey liggéeyul kuy sa ndeyam moo gën a liggéey sa ndey voilà donc boo ko jàppee philosophie boobu du ñun duñ la intéressé pourriture nga leen di jàppe mais ñooñu yow la ñuy revendiquer ne yow lañu ñu ànd di wax wax ji ñaaw ju ne on s'en fout wax ju ñaaw assemblée nationale da fay tey sénégalais duñ wax seen xalaat wax ju ñaaw ci réseaux sociaux day tey duñ la wax ñu ñun xalaat mu ta nek buñu wax buñu jëlon antenne dox 8h ba minuit tambali wat ko la lendemain 8h ba minuit lu ne sos ko lu ne wax ko du tey ñu wax la ñun luñ bëgg wax ak luñu xalaat bu ne méritez pas ça porte de sorte bi mérité woo ko tey ji da nga nek ñi ñaa ngi koy ngurumtoo dëgg la am du deug xawma

foo dégg rek dégg nga fa coow mais xam naa ne amoo courage séparé woo moom ndax ah dina ma jaaxal nga séparé woo ak moom dina ma bett troisième mandat bi sa jabar moo la ko bëgg a forcer damay laajte moo la ko bëgg a forcer ba mu jar lu ne. sénégalais yi di leen xeex de te li nekk ci yow say obstacle dafa bari yéen seen obstacle bu njëkk mooy yow sa soxna ak njabootam ñépp mooy éliminer la candidature de Sonko soxna Marème Faye Sall bu waxee yow da ngay foog ne <laughs> elle est innocente elle est très mais man damay jàpp rek na faluñu ñuko yow lañu fal mais elle a un poids énorme dans le pouvoir énorme très énorme dafa am yo xamne dañ koy rusa wax jom ba wax rek nga wedd sa cadeau kilifa diine yi nga demone tok ñepp wax leen ne da ngay régler problème bi do wut troisième mandat wa ñooñu ñun lay xoolaatee muy benn ñaar volonté bi ma wax léegi éliminer coûte que coûte Ousmane Sonko par tous les moyens obstacle boobu noo koy surmonter trois nga def sa candidature sénégalais yi di xeex bàyyi bakkan di def rotati ko yàlla. boo forcé nan ngay gañee élection yi boo ko lijjantee sax ñu tuddee ko hold-up électoral parce que nag tendance yi toute la communauté internationale am nañ ci parce que man ma am naa ay yu ma ci wax ñu ne leen ñu ne ma même même s'il force pour être que candidat risque d'être battu waaw boo defee loolu yëpp sa gouvernance nuy xoolee Sénégalais ban porte de sortie honorable ngay am est loolu yëpp yaa ngi koy xool yow yaa ma doon wax ne y a une vie après le pouvoir président yow xam nga sa àqulaay taala na sa giir muy yow sa jabar say doom ak loo leen mën a dootu leen am problème mu xaalis ilaa yow mi dindi problème boo leen am kay beneen la mais du doon problème mu xaalis otage yu ñan nga yow mën nga bàyyi nguur gi bu nekkee da nga nekk ay otage homme d'affaires amul homme d'affaires bu sérieux di business sérieux bu la gëm ma sàcc wax la ko tey parce que gis nañ ne yow liggéeyal tubaab yi liggéeyal ñooñu moom nga gën a def ci sa nguur que dimbale leen ñoom juróomi at a ngi nii secteur privé def naa recevoir leen ñu koy joytu kon nga foog ne homme d'affaires sénégalais yu na yow créé nga nag ay homme d'affaires ñooñu man du ma leen woowee homme d'affaires ay dealer lañ dealer yoo xam ne yoo xam ne dealer yoo xam ne yow yaa leen fi door kat lañ point barre parce que du seen mérite du seen xam-xam du seen capacité du leen dara door jege sa doom door jege sa jabar door jege la door président ñaari nguur boo ko defee ba pare li lay xaar a gën a neex xaalis wax naa la dootoo ko am problème loolu ma mën gëm naa ko cacacaa nga nar a dundee dund cacacaa loolu la neex ba pare yàlla mën naa def nga nekk secrétaire général ONU yàlla mën naa def nga nekk ci yeneen i poste gën a bakkane prestigieux bàyyi fi woy wu rafet donte dina mais yu bëri dafa xewi te président lan lay ñaan ci njëkk ci respect ak kóllëre ga amoon parce que xaw ma ndax am nañ ko ba tey jii ngi jëm ci korité libéral lu bari ci prisonniers ñu korite ji seen kër réew mi am tuuti jàmm parce que ñi nga tëj nii xale yu ndaw bu duggee ci prison sa yaram day daw ñu déglu almaktum ñu daan wax dafa xewi yu bare bari dafa xewi dafa xewi kay nu xëccoo dafa xewwi kay nu wujjee dafa xewwi man rekk fi nekk dafa xewwi ñaawal kanam dafa xewwi mag mu reew dafa xewwi mag mu yare dikku dafa xewwi kon président waxtaanal ak sa njaboot Madame troisième mandat bi nga génn ko sa xel la neex ci le nga ko mu sa candidat gens nit ñi l'élection. Les sénégalais choisir librement c'est important Il wax importance nekk ci parce que pas am benn ngóora benn prestige boo xam ne ñu ngi koy dàkkantale moo door sénégalais yi saar yi gis nga nu mu génnee gis nga blende yi gis nga lii waaye amul benn ngóora ko fa defoon ñëpp tey jii amuñu ana ana benn aale kan koy fàttali sax Tunisie am na problème c'est vrai Tunisie Hosni Moubarak fàtte nañ ko sax Aujourd'hui, si on euh, assimile le Sénégal à ces pays-là, ça pose problème. Ça pose problème. jàmm daal lan la yéene sa nguur gi moom yàlla moo joxe nguur ñu nangu ko waaye nag jot na ñuy wax ak yow ci dal pour xel yi dellu si waat di leen sant di leen gërëm leen souhaiter une bonne fête de corité di leen digte incha ci beneen waxtaan seen site Dakar Matin ngeen continuer di abonné continuer aussi di abonné ci page Facebook papa Alé ak compte Twitter bi kon ñu ngi leen sant di leen gërëm jërë ngeen jëf.